LONASE dafa lancé jeu bu muy wooyee yoonu Qatar yoonu Qatar bu ngeen ko déggee dañuy jàppale sport bi di jàppale football bi parce que xam ngeen ne suñu équipe nationale ñun ñooy seen sponsor leader depuis plus de trente ans di def lu nekk ak ñoom ren ñu continuer di def loolu waaye yokk ci lancé jeu bi pour permettre ñi nga xam ne bëgg nañu football depuis bi Sénégal gagné coupe d'Afrique bi gis ngeen engouement bi mu suscité. n'est-ce pas ambiance bi ak enthousiasme bi nit ñi am ci euh, suñu équipe nationale moo tax ñu ne pour lu gën a bégloo supporters yi ñu lancé jeu bi tudee ko yoonu Qatar yoonu Qatar dafa nekk loo xam ne dañuy def ay jeu suñuy parieur di ci jouer ci lonage point lonase.bet di suñu plateforme ak mass commune internationale weer bu nekk ñu def tirage génn ci ñetti nit wala ñaari nit ñi ñetti weer yi nga xam ne ñoo jiitu balaa coupe du monde di jot donc weer bi passé am na ñetti nit ñoo xam ne gagné nañu ñu jox leen fii seeni i titre de voyage tey am na ñaari nit muy monsieur Diop ak monsieur fay ñoo gañe ñoo leen doon jox ni ay euh, titre de voyage pour ñu mën a dem Qatar weer bi di ñëw tamit mooy dernier mois bi ñuy woo parieurs yi mën a joué parce que dinañ defaat tirage au sort nit donc au total juróom ñetti nit la LONASE di jël en charge wutal leen billet d' avion. yóbbu leen Qatar ba bañ a jël si loger leen dans des hôtels de luxe di leen fayal tamit ñu jël en charge seen euh, entrée au stade ak yeneen courses yu ñu war a def foofu Qatar suñ ko defee nag c'est pour comme ni ma ko waxee jàppale équipe nationale gunge leen parce que xam nañ ne supporter dafa am solo ci euh, équipe euh, notamment si football loolu moo tax ñi nga xam ne dañu gagné ñu ngi leen ci félicité di encourager yeneen parieurs clients Lonase yëpp ñu continuer jouer bëri nañu ay jeux. waaye mën tañ tamit gagné si lii nga xam ne mooy yoonu Qatar ba nga xam nañ bokk ci les trois derniers qu'on va tirer au sort au mois de septembre. voilà. donc man Doudou Faye laa tudd euh, ancien cadre là de de euh, dama dégg jeu bi am na rek ma tenté sama chance et puis j'ai may xamal ak ñi bëgg a jouer de sa beneen tirage il faut jouer quand on joue on gagne soo joué wul doo gagné. et que véritablement du ay naxaate parce que lii wane na ne carrément du ay naxaate. lu am la yëg mooy dama am naa mbetteel parce que dama jàppoon ne damay jouer pour la forme rek foofu c'est des histoires mais en réalité wane na lii wane na dëgg la donc caaxaan LONASE day jàppale ñëpp day jàppale nation bi boîte la boo xam ne daal war na mën a yokk. tey ban message ngay a joué. ñu war mooy yoonu Qatar bu dee tirage bi des na beneen tirage septembre bi le 21 septembre plus exactement euh, nañ góorgóorlu joué boo joué di nga gagné sa chance nekk di nga dem parce que nag supporter l'équipe nationale du Sénégal très loin au Qatar c'est pas donné à quiconque et la coupe du monde benn yoon la ñeenti yoon at ba ñeenti at la yem da ngay taw ñeenti at soog a joué coupe du monde donc soo soo amee chance dem si da nga war dem supporter sa ñu yàgg fa parce que dañ ne en fait euh, tant que équipe baa nga fa rek ñu ñu nga fa donc ñu sa dem ba final gagné ko bi c'est possible hein c'est un pari et boobaa la dañuy fêter la noce pour ça c'est ça merci beaucoup. Euh, lii alhamdulilah rabil alamin euh, dañu jéem ñu tànn ñu ci suñuy biir junniy junniy nawle donc loolu sutura yàlla la yàlla moo ko tuddoon te maa ngi ñaan yàlla aussi. nañu taxawee fii aussi yàlla na yàlla taxawu équipe nationale bu Sénégal bi tax ñuy dem foofu ba seen mébét yëpp mooy am kub bi mu agsi ñaan naa ko yàlla aussi maa ngi ñaan euh, parieurs yeeg ñuy joué xbet ak euh, masse commune ak et cetera ñu gën a góorgóorlu xam ne lii wax dëgg yàlla xéewal la bu mën a ñëw ci ku ne donc nag bu ñu gën a góorgóorlu aussi yàlla mën na leen defal la ñu foogul mën nañu àgg fa ñu foogul euh, yàlla mi mën mi àttan daal maa ngi koy maa ngi jël waa LONASE waa fédération ak ñëpp teg ko ci ay loxoom yàlla na leen yàlla may kàttanu continuer ci la ñuy def yàlla aussi taxawuñu ñun ñëpp suturaal ñu ba aussi lépp lu ñu mébét aussi ñu àgg ca te xamal leen ne jeu espoir la te espoir boobu aussi yàlla bon du yaakaaru ñëpp moo mën a sotti daal mais képp koo xam ne kii daal euh, joué nga yàlla na la ci yàlla may dara ba mu wees sa njort daal loolu daal laa mën a wax jërë def merci sebi Xotaan maa ngi dëkk Sébi Xotaan euh, après Diamniadio waaw Sébi Xotaan waaw merci jërë ngeen merci